Allah ma jot waaw ñu jël lam بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينه رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والكتاب في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم أولئك جزاؤهم عند ربهم جنات عدن جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه جزاكم الله خيرا بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب نكل woon يدي ña weddi والمشركين ñoñi téere munfakkiina nekk di aj dëpp ca la ñu nekk xatta taatiyahumul bayyina lu dul da leen dikkal layu leer ya rasulu min allahi yatlu mu yonent bu bawoo ci yàlla di jàng suxufam mutahara jàng ay këyit yoo xam ne yu ñu laabal la fiiha kutubun qayima mu nekk ci bind yoo xam ne yu jubla وما تفرق الذين أوتوا الكتاب تقلكوول نيغا خامني دانيو جوتون تيريبا إلا من بعد ما جاءتهم البينة خنا لودول غنا بام لين ديكالي لا يو ليريا وما أمروا إلا ليعبدوا الله نيوم داي ديغلو نيو لين وون لودول نيو جامو يالا مخلصين له الدين حنفاء نيو سلال كو دينم جي جينغ ليپ لوي شرك ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاه ñu taxawal julli te joxe azaka wa zalika diinul qayima te loolu day mooy diine bu jub bi inna lazina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikin ñi nga xam ne dañooy weddi ci ñi jotoon téere ya ak bokkaalekat ya fi naari jahannama xaalidina fiha ñoom ñépp day ci sawara lañ jëm sax fa ba faw ulaika hum charrul bariya ñoom day ñooy ñi yées ci mbindaafan ya inna lazina amanu wa amilu salihat bu dee nag ña nga xam ne dañoo gëm ca jëf jëf yi yiw ya ulaayika hum xayrul bariya ñoom day ñooy ña gën ca mbindaa fan ya jazaauhum inda rabbihim la nga xam ne moom mooy seen fay ci seen boroom jannatu adnin tajri min tahtiha al anhar mooy ajjanay sax ba faw yoo xam ne dana daw ci suufam ay dex xaalidina fiha abada ñu daal di fay beelu sax fa ba faw radiallahu anhum wa radu anhum yàlla dana gërëm ñeel leen ñoom it dañ gërëm ca seen luy jóge ca seen boroom zalika liman xashiya rabba lii lépp nag ñi ngi ko dencal ka nga xam ne daa ragal boroomam mi ngi noonu bokk da gis ni suñu boroom yàlla bi muy yónni suñu yonent sallallahu alayhi wa fekk na àdduna bi lëndëm diine bu sell bu leer amute fii bokk na ci loolu Salman al Farisi mi nga xamee ne nii ci histoire am euh, dañ ko dafa àndoon ak benn labbe labbe boobi ba mu demee ba màgget mu ne ko waaw su la gisatul ana fan lay jàng diine mu ne ko masalan demal Kaolack am na ko fa nekk kooku day desene li Isa yore woon moom demee ci kooku ba kooku it kooku yebal ko kenn ku nekk Saint-Louis ba mu demee ci kooku kooku ba mu ko gannaaw yow ndax xam nga kuy dund li Isa yoroon mën na ko déedéet kuy dund li Isa indi woon ci kaw suuf xamatuma ko am na nag jamono bii la yàlla war a yónni ab yonent yonent boobu xawma fu muy juddoo waaye mu ngiy mujj dëkk boo xamee ni nii mi ngi misaal ko Madina mu Yasrib dëkk ba bëri tàndarama foofu lay mujj yàlla dogal histoire ba gudd na mais Salman mujj na dem Madina ba yonent bi sallallahu alayhi ñëw mu daal di koy gëm radiyallahu anhu ah, suñu borom nag mu ne kon ñi di ahlul kitaab ak yéefir ñu ngi woon ci lëndëm lan moo leen ca mënoon a génni mooy bi yàlla yónni ab yonent mu indi lay yu leer yonent boo xam ne yàllaa ko yónni téere ya muy jàng mu tahara la dañ koo laabal fen amu ca njuumte amu ca yokk amu ca wàññi amu ca seytaane amu ca kàddu dañ koo laabal ya ca nekk ci ay digle it lu jub la la muy digle ci julli koor aj makka lépp c'est équilibré dëppook njëriñu doomu aadama la muy tere njaaloo ga carte ga sàcc ga riba ga lépp dafa doon loo xam ni kuy boroom xel da koy nangu amul lenn loo xam ne xaraj am na ca loo xam ne doomu aadama day nekk jafe-jafe ci moom bu mu koy xatal ci diineem loolu ba mu ñëwee ñii di ahlul kitaab juyoo wuñu lu dul bi lay yi ñëwee avant yonent yàlla muhammad di ñëw ñoom ñëpp dëppoon nañ ñi mi ngi ñëw ba yahud yi nekkoon madina suñ daan xeex ak arab ya fa nekk kaanu yastaftixuuna ala allazina kafaru dañ doon wax yàlla yàlla nag ñu yónnee yonent bi nga xam ne digg nga ñu ko ba ñu xeex ak yéeféer yi ba leen gis ngeen <coughs> yàlla dogal bi yàlla yu ne bi moom far yéefir yooyu doon wax ñoom jiitu leen ci kon juyoowuñu ba am ñu gëm am ñu weddi lu dul bi yonent bi ñëwee avant muy ñëw nag ñoom ñëpp gëm nañu waaye bi mu ñëwee <coughs> gis nañ Madina ñu néew ñoo ca gëm ku mel ne Abdullah ibnu Abdusalaam nga xam ne bokkoon na ci ñi gënoon a xam ci ñoom tawraat bokkoon na ca ñi nga xam ne dañoo gëm mu ne moo ñu day yonent bi bu ñëwee bi mu ñëwee lan la leen sant mooy lu neexee dégg ñun ñëpp kay leen ñu bokk jaamu yàlla sellalal ko diineem te loolu la ñu yàlla sant ñu woo ko waa ahlul kitab ya ahlul kitab taalaw ila kalimatin sawain baynana wa baynakum alla nabudu illa allah wala nushrika bihi shay'a loolu képp koo xamee ni nii dëkk nga ko chrétien ab juif mi ngi noonu kay leen ñu bokk jaamu yàlla bañ koo bokkaaleeg dara isa jaamu yàlla la muhammad jaamu yàlla la ay yonent yàlla lañu ñun ñëpp yàlla lañu war a jaamu ñu sellal ko diineem moytu lépp shirk taxawal julli joxe azaka suñu borom mu ne lii mooy diine bu jub waa gars yi diine bu amul julleeg azaka loolu lu mu doon moom suñu borom mu ne loolu mooy diine bu jub mi ngi noonu zalika dinul qayyima borom boobu subhanahu wa taala nag ne gannaaw bi yonent bi ñëwee ñi nga xam ne dañoo bokkoon ci ahlul kitab juif la ñoom chrétien la ñoom lu ñu mën a doon ñu yëg ne yàlla yónni na ci ñoom yonent yàlla muhammad comme ni mu yónnee woon Muusa yónnee ko Isa ñu weddi ko suñu borom nee na ñoog mushrikuun yi ñooy ànd naari jahannam te moom la borom di wax ci yeneen aaya wa man yakfur bihi min al ahzab fa naaru mawiduhu yonent yàlla muhammad ku ko weddi sawara nga jëm daana wax ni képp ku ma dégg nga yahud wala nasaraan ca gëmoo ma safara nga jëm te mooy koo xam ni jottali nañ ko diine leeralal ko lan la diine indi mi ngi noonu ci soxofan mutahara ya yooyu borom bi wax borom bi nag ni ñooñu ñooñu yiis ci mindaafa te mbokk jullit yéeféer mooy ki yiis ci li yàlla bind wax nañ ko sànq ndax bu dee bàyyi yu ma yee nga xam ne nit ñi xeeb nañ leen dañ naan xaj beeg golo beeg mbott beeg ñooñu mbokk duñ dugg sawara ñay dugg sawara xaalidina fiiha mooy yéeféer kon ñoom ñoo ñuy yées ñi yàlla bind amma jullit ñi gëm cay def lu baax ñoo gën ci lu yàlla bind donte ne ne boroom xam-xam moom la ixtilaaf ndax nit ñi ñoo gën malaaka yi waaye dangay gis ne bu ñu xoolee la gën a not mooy mbooloom malaaka yi ñoo gën mbooloom nit ñi loolu laa shakk fii waaye am na ci nit ñi ñu dem ba tim malaaka yi ca muy rusul moo tax lu bari ci borom xam-xam yi demal Arabie Saoudite lu bari lu ñu bëri lu ñuy ubbee moy wa nusalli wa nusallim ala xayri xalqillah te moy ki gën ci li yàlla bind moy suñu yonent muhammad sallallahu alayhi wasallam hadithu isra wal miraj jibril ànd nak mom ñi bëtt asaman yi di xoti di xoti ba am fu jibril yam yonent yàlla continue tim bindaa fan yeb kon moy khayru mooy al anbiya wa rusul wa salihin min ibadillah nga xamne dañu jaamu ba yalla gëm gërem leen ulaika hum bariya ñom ñoo gën ci ñi yalla bind yalla yalla boole ñu ci borom bi nag mu ne ñooñu seen fay ca yàlla mooy jannaatu adun jannaatu adun yàlla ko bind ci loxoom nim bind suñu bay aadama ci loxoom birig ya koy tabax birigu or la ak xaalis décor ba yàlla xam lu mu doon waaye birig ya or la ak xaalis bim paree wax na jannatul adn yi wax na comme ni sawara di waxe yowmal qiyama xam nga yàlla nee na sawara day wax sawara hël yim talaati mu ne hël hël min mazid jannatu adn ba nga xam ne yàlla tabax na ko ba pare bokk na lu mu wax qad aflaha al muminuun texe na julit ñi mën a rëdëkki te moom day jaamoo yàlla ci teral julit ñi yàlla na yàlla boole ñu ci jannatu adnin tajri min tahtiha al anhar xaalidina fiha abada ñu sax fa ba faw ñooy ñi nga xam ne suñu borom yàlla gërëm na leen te gërëm lu ñu nar a def abadan faw luñ def rek neex na yàlla bakkaar amatul interdit amatul waaye ñoom it gërëm nañ ñeel seen boroom àjjana amul kenn ko fa nekk di ñaan lenn changé lépp loo nekk rek loo gërëm lay doon laa yabghuuna anhaa hiwala amul benn changement boo fay bëgg borom boobu nag nee lii ñi ko moom ña ko yeyoo mooy ñi nga xam ne dañoo ragal yàlla ragal yàlla luy màndarga bi mooy ragal nañ yàlla ba def ay ndigalam ragal yàlla ba bàyyi ay tereem lii dong mooy ragal yàlla mi ngi noonu yal na yàlla boole ñu ci yàlla ñal defal àjjana mi suñu wàccu waay mi ngi noonu musal ñu ci lépp luy yàq àdduna ak alaxira wa sal allahu wa sallam ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain